dikkati naa ña ngay politique waxtu woowu sénégalais yi de ña ngay bëgg a faatu ak i tolof tolof waaye tam natt yoo xam ne mar day taali bu ñëw gën a métti moroomam turbine yéen a kaay naan maan ay lakk yu métti moo am diggante marché bu mbàkke ak jëppal derkele juróom-ñett ci cantine dañoo lakk ba daal di jeex tàkk ca marché bu mbàkke ba ñetti nit daal di ñàkk seen bakkan ci ab gaz boo xam ne dafa daal di kalaate fee ca jëppal derkele vox bopp kon ñaar ñoo faatu woon fi mu ne keneen faatuwaat na démb bilang ba daal di yokku turbine yéen a benn kër la mbir mi amee lu tollu daanaka ci fukki nit amee ca gaañu-gaañu yoo xam ne métti na ba jéggi dayoo ñoom ñëpp ma ni la ñi ngi ci l'hôpital daanaka garab yu ñu fajoo sax daal di manqué yéene kaay bi naan maan moo tax it ma waxati leen rek gaa yaa ngay waxtu woowu réew maa ngi ci tolof-tolof ak i nattu direct news daal dina ma tolof-tolof weesuwul collectivité territoriale yi nekk ci gréew goo xam ne maar day taali ñi nga xam ne ñoo yëngu ci politique waaye itam société civile kenn ngaangu ci yëy yàbbi moo ne day collectivité territoriale googee seen banku loxo gi askan wi ci boppam ñoo ko yëg direct xale yaa ngi nii war a ubbi l'école soxlay kayit fu ñu koy jëlee te bu doon waxu politique la ni la tey ñu xëy amee télé yeeg rajo yi kaas geeg wax ji mel ni tuleeg maale tey nag askan wi ci boppam la ñu daal di privé la nga xam ne ñoo ko bëgg muy këy te société civile ak politique ñëpp ni ci cell ñaaw na turbine yéen kaay naan kon la ñaaw kay mooy guerre bi nga xam ne mi ngi am biir APR waa APR ci boppam di xeexoo ci seen biir loo ci mënti dégg xeexuk amadu Ba gi bàyyeekoowul ci biti déet biir APR ci boppam ñooy xeexoo ci seen biir APR man la mësta dund li muy dund nii ci Amadou Ba coalition Benno Bokk Yaakaar sax turbine yéen kaay dama ndax nag guerre bi ci biir coalition bi ñu koy guerre Amadou Ba mitti na Dakar Times naan Amadou Ba dey bu ne lawee ba yandoor ma xam ne nag rax na damitu wàlliwu ndax amadu Ba mii président Macky Sall tab bu ko ne ko yaa may wuutu moom Amadou Ba du meeting moom Amadou Ba du conférence de presse moom Amadou Ba du déclaration boo xam ne defal na ko Sénégalais yi moom amadu Ba du programme boo xam ne war na joyanti réewum Sénégal Benno Bokk Yaakaar moom bu dul tamante kenn déggu leen ñu wax leneen ci candidature bu amadu Ba bi mu mel ni Amadou Ba ci boppam dafa jàpp ne présidentielle bi jël na ko ba nuppi mu toog daal daanaka jugu fa toog ci ruqam te ne dinaa gagné présidentielle bi lii daal la Amadou Ba nekkee ci réew mi l'observateur naan ko déet Amadou ngay doxal ci suuf de petit palais bee nga xam ni fa dëkkee moom Amadou Ba woote na fa ak ndaje ni ki démb te mi ngi def kéemtalaay kattanam ngir Alioune Sarr dikkaat ci coalition bi mari Teuw ñaan dikkaat Aly Ngouille Ndiaye dikkaat Mame Boye Diao ak ñeneen daal di dikkaat moom Amadou Ba nag tey jii ma ni la dina génn ci ruqam fas yéene wane boppam te tiwaawan meewaan ak pire critique yéen a kaay naan man en tout cas waa Benno Bokk Yaakaar moom mere nañ ko ndax muy def lu ne Amadou Ba daal boolewu ca kenn l'enquête ko di naan kon ku bokku PDS sa loxo sa kaw ndax nag ñi ngi waajal fi mu toll nii Karim Meïssa Wade ak coupe di kaam ñuy waajalit ab congrès boo xam ne moo war a taxawal Karim sa wadd mu doon seen candidat moom Karim ñu koy xaar diggante Italie France laata muy teg tànkam fii ci Ndakaaru Abdoulaye Diop député maire ne fi mu ne nii lépp luy yeesal ma ni la parti démocratique sénégalais noppi nañ ci dikku Karim Meïssa Wade dong moo ci de source amel ni ku naan leen <laughs> Karim day nee nañ ko mën nga bokkaat ci élection fallu ci réew mi ci sell cellu Karim Meïssa Wade gii mi ngi tàmbalee tiitalaate parti yëpp ngi mel ni sabaru ñooñu xumbute dagan lool waaye parti démocratique sénégalais dara yëngu fa ndax Karim dikkul kenn ci responsable yi source aane mënta wax ne Karim Meïssa Wade woona ma lii la ma wax cadre libéral bi ne képp ku ko wax ma ne la du dëgg nee na amuñu benn xibaar ci Karim Meïssa Wade xanaa benn mooy keroog ba nga xam ne mi ngi doon jaale Maroc akub askanam ba ci parrainage bii ñu daal di soobu ma ne la Karim Meïssa Wade amul benn waa parti démocratique sénégalais bu mu ci waxal 24 heures yéen kaay nan man candidat woo candidat candidat ngi nii présidentielle 2024 bi bàyyi leen xel docteur Abdourahmane Diouf candidat la boo xam ne mënee su ko wër ndomb ndax nag Abdourahmane ci boppam nee na mbébétam daal mooy daal di andi saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wi jamono ji ñu ngi koy dund ci réew mi waa grand place naan man beneen candidat ngi nii ab sénégalais la boo xam ne ab entrepreneur la ma nga dëkk ca États-Unis moom Roger Boissiné Sénégal daal laa bëgg teg ci raay ndax nag diplôme ingénierie financière ak science politique la am nekkit koo xam ne samay relation ca Amérique gee Roger Boissy ne lépp laa bëgg tegal sama réew ma ni la taxawaay détermination ak engagement ne dama bëgg a yeesalaat ci réew mi rawatina ci dénduk Afrique ba ku ci nekk na xam ne dëgg-dëgg politique lii lay laaj ñu daal di koy doxalee ni mu waree l'indépendant yéen a kaay naan maan waa Sénégal moom dañoo xeeb askan wi ba ku jug bëgg nekkum président wala lu mu lu toll ci juróom fukk ci doomu aadama di doomu Sénégal jamono jii taxaw nan ne dañuy samp seen dënd ngir jiite ñu te bar na ci ñoo xam ne taxaw nañ ni sénégalais yi dañ leen bëgg jiite def tex tex may ree le point yéen kaay naan man Amadou Ba day kenn reew ko Mohamed Diaité plénipotentiaire bu Benno Bokk Yaakaar ca Bunkilin ne xel nangu na Amadou Ba xalaat nangu na Amadou Ba ndax amadu loo ci manti déggit qualité dong lañ ko daal di tabbee Mohamed Diaité ne Amadou mën naa nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ndax boolekat la moom njiital post ba tey ne politique gu émergence daf koo téye ci loxo loo ci mënti waxit boo ko séenee xam ne dëgg-dëgg homme d'état la am na yërmaane te mën na taxaw askan wi moo tax muy woo Casamance ngir ñu génn taxawu Amadou Ba peuple yéene kaay naan man président Macky Sall day ku koy taxaw ndax Sall daal ni ki démb daal dinay kaasalati Afrique man ko def nag ki tur bi nu mbootaayu xeet yi laas yéene kaay naan président Macky Sall kay démb dafa doon tàggu waa mbootaayu xeet yi Le Soleil yéene kaay naan kon tàggatoo xam ne daw na yaram lool réew mi ko dajee naan kon terewul moom président Macky Sall laataa muy dem daal dinay xam le ni Afrique daal mar na te kenn teguñu ko nag ku dul njiit yi nga xam ne dañoo am doole mel ni kuy noggatu Afrique Fatou Blondé Diop ci yor yoru yéene kaay naan kon bu njiit yeneen di noggatu Afrique yow président Macky Sall ngay nogg nekkatug sa askan ndax nag Sénégalu Macky Sall lenn daal lañ fi mën a wax loo xam ne dox na fi muy ay mandat de dépôt les fa yéene maan Sénégal faat na Pastef Afrique daal di déclare geneen Pastef fukki parti yoo xam ne ñi ngi ci dénduk Afrique daal dina ñuy wal Pastef Africa turbine yéene kaay naan maan Ousmane Sonko dem di wili pandé président Macky Sall ca CEDEAO daal di wax nag naqar gu mitti gi nga xam ne ñi ngi ko koy teg Walf Quotidien naan ko société sénégalaise bi ci boppam moo daal di xaajaloo te dara ko nag lu dul diggante Ousmane Sonko président Macky Sall Abdou Khadre Sanogo ne attention sénégalais yi bari na ci ñoo xam ne day ay fanatique lañ demeewuñu xel waaye xol ci boppam la ñuy demee Alioune Tine ci Vox Populi ne en cas bombe bi nga xam ne mooy Ousmane Sonko war nañ koo tere kalaate ci réew mi te dara du ko tere kalaate lu dul waxtaan ci sunu biir fexe ba Sénégal doon benn say kenn du ko mën a xar ñaar te coow li coow li mooy Ousmane Sonko ci boppam ay mbiram buñ ci waxul day Sénégal mën na dugg ci guutaatu moment révélation yéen kaay ne ma en tout cas waa yeewi moom fi mu ne waxuma la xeex ci bitti waaye biir la ñuy xeexoo Ababacar Sall daañu leen daqe ci groupe parlementaire bi moom nguuda mbuub jébbal ab citation Aba Mbaye groupe parlementaire bu yeewi askan wi di amal ay réunion ndaje yoo xam ne seeni ñooñ ñu taxaw Sénégal fekke wuñ ko tribune yéen a kaay nan kon en tout cas Sénégal mi ngi soobu ci guuta goo xam ne kilifa diine yi daal ñu ngi di ñaan ci seeni waxtaan ci gàmmu gii ñu waar ndaw ñi wax leen seenu taxawaay ci réew mi waaye tam wax leen seeni sañ-sañ ñoom ndaw ñi lees loo xam ne buñ ko defee Sénégal jëm kanam l'observateur mel ni ku naan man Sénégal ni muy jëmee kanam ak yu ñaaw yi nga xam ne mi ngi ci réew mi yàq yàqante bi tamante bi xamal sa morom lu ñaaw génnee ko day mi ngi mel ni tulleeg màlle ci réew mi ñaari soxna laalox tey nañ leen ca mbuur xam nga lu ñu defam fekk ay vidéo maar day taalib soxna soo xam ne dafa am borom kër ñu jël vidéo yooyee daal di partagé ci partage ci boppam la ñu sooboo ci kaso ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm